la presse. ñoom tey dañoo am seen presse yi bopp ñoo xam ne li ñu ñu bëgg a dégg ak liy waaj a am ñoom ñooy sonde teg te ku ñu bëgg a jiiñ wala ñu bëgg laa teg ñoo ñoo lay tàmbalee jiiñ fu ñu commencé laa woo man am naa gàcce benn bés. ci ñoom lañ koy jaar. waaw am naa gàcce bés. Hmm. man liir nii dafa am superviseur bu ñu fal ci benn lycée. Hmm. am femme bu génn nii. Hmm. kii ci waa kër Macky la bokkoon ca intendant ca saasa ñu dindi ko. léegi kooku. doomu réew mi la wala du doomu réew mi. wala léegi tant que bokkoo Pastef amoo droit liggéeyal Sénégal te nga nekkoon fonctionnaire avant kon tey yow fonctionnaire bu mën liggéeyam dootul avancer tant que nekkoo Pastef wala ku nekk Pastef dina la féete kaw. Hmm. problème comme euh, Keita problème mu Déthié Fall dama ci wax wax ju bari. Hmm, hmm. Déthié. Déthié nit ku ma respecté la. je l'aime beaucoup mais jëndee na ko lu ko jarul. il laa yem ci wax jooju. ma ni aéroport bi. xëy suba rek traqué ñu ni dootoo jàll. Hmm. mais man am na lu ma mës a dal aéroport hmm. bi ñu doog a falu. Ah. damay dem Paris ànd ak sama deux éléments. Hmm. ma jàll aéroport bi dem bay waaj a yéeg. salle d' embarquement. te voyagé wu ma ak sama passeport diplomatique te ordinaire laa voyagé. ñu toog ba si yàgg ba ñuy waajal kii rek deux douaniers ñëw. monsieur Fall ça va bien topp ñu ma ñëw. ñoom bi sama saak ni ma ñaata nga yor ci xaalis man ko xaalisu lan. ma man du ma ministre conseil laa woon du ma yor ma daal di ubbi ma ne ko ah man de deux personnes laa àndal te lii laa yor matul bii loolu mhm. ñu dem jëli ñaar ñi ma àndal di fëgg seen saak te des fois après maa bi daanu na waaw maa koy doog a nettali nii mm. mais je me suis kon fii mën nga service yow ba dee bés àndoon ñoom nit bëgg laa toroxal keroog ña ma bokkaloon foofu ñëpp mer mm-hmm. ni ma même douanier yi ya fa nekk ñu yaru mm. lañu nañ monsieur le maire vraiment ouais. on est désolé on a reçu des instructions mais vraiment des ordres mais on est désolé mm. réew moo réew te kooku nga toroxal mën nga koo suqa suqa mm-hmm. donc euh, show bi arena show laa ko tuddee ah show la pour yow waaw mm. dafa am ñu jàppul ni fi réew mi toll la buggaan doon defi di dimbali ñit ñi di téléthon dimbali ñit ñi mm-hmm. moo gënoon yenu maanaa nga naan leen kaa leen ñuy cotiser mille francs mille francs xam nga man ku mel ni man nu ma ko jàppee. Hmm. blanchiment d' argent. parce que ñu ngi wax xaalisu ONAS ci biir arena bi nga ni ONAS deful dara ñu ngi wax xaalisu ASER nga ni deful dara ñu ngi wax yeneen xaalis. yow fi nga toog nga blanchir ñi nekk sa kër ñi ci tudd ñëpp. ba pare ne am naa cinq cent et quelques millions. ah mais mais mais plateforme yaa ngi fi de monsieur le maire. levée yi levée de fonds yi gars yi ku ci nekk da ngay joxe sa deux mille. dama ne la jamono yi Macky am na. DG di joxe boo ko ah la DG salaire DG du passé cinq millions. Hmm. boo ko laajee cinq millions yaa ko sàcc loo ndax weer boobu du yóbbu dara këram. Hmm. loolu tegewul ci yoon du du lu rafet. du lu rafet. même ba ci ay militants di ko ñëw cotiser. pour pour financer campagne li gënoon a rafet ba mu ko dajalee. Hmm. mu dem dolli ko waa Bakel. parce que jamono jooju mu koy def. Hmm. waa Bakel a ngi naan ndox mi toll na leen fëleel ndox mu ñu naan la ñu soxla. nee nañ booba boobu buggaan mu ngi yor ay camion ndox di yóbbu. nee na moom booba yóbbu na fa huit milliards. huit milliards de wax nañ ko ci ay nopp parce que mos nañ ko wax Touba am ko weddi. donc man ma façon boobu te arena boobu ak lu dul arena wax ju ñaaw ju ne yekk nañ ko ko ci Macky Sall ni du priorité mais tey bi ñu koy féete ci biir arena te arena la fa daje seize mille places fa benn député waaw ça c'est clair mm. boo amul vingt mille bu teg jamono ji bien sûr falul benn député tout à mm. kon fees na dell mooy ñemeetoo mbedd ma ba mu de ba waa ba mu nekkoon la mu nekkoon ak a pes la mais aujourd'hui stade yu mag la daan dem mais nag nguur boo ko yoree wax ca la nga wax yëpp yu dindiwaat nga ko say militants ngay wéetal tëju et aujourd'hui mi ngi def ay caravane dans dans certaines localités comme démb fu ci mel ne euh, Tivaouane euh, fi nga xam ne moom mooy Thiès tey tey bu Tivaouane bi ma gis ci c'est autorisé quand même ay ay bain de foule ci lan nga ah, koy teg attendez mm-hmm. na bu ma gis ci internet bi mm-hmm. buñ ko falsifié wul cortège funèbre la gën a <laughs> déedéet waaw sérieusement bu ñu ko falsifié wul bu dee loolu mooy dëgg. Euh. ah ñuy suuli ko amul mboq la ko doon nuru. donc euh, Manantali bi. Manan. Euh, barrage barrage de Manantali ci mën nañ ko ci defaat. lii daan nañ ko junj ñu soofantal ko. Mm-hmm. mu ñëw def musiba te nee nañ buñ ci jugul dina dem ba mm-hmm. amoon nay prévision moom. état nag da ngay anticiper. mënoo def ñu ne fii taw na nga dem sànni ñaari saako ci feex yëpp na nga dem nii mënoo mujj toujours nekk dans la réaction. alors li ma la doon laaj sànq. xam nga bi ñu bi ñu dem léegi laaj ma lu la neex ma tontu la. léegi juróomi minutes yi moom dépassé nga ko li nga bind lépp dafa dafa bari mais bon bu ñu ñëwee ci euh, bu ma waxee un programme de législature dañu gis aar Sénégal bi ñuy dem élection législative 2012 2022. dañu indi benn programme bu am solo boo xam ne teg nañu ko donc est-ce que sa programme de législa de de législature yow da nga koy teg ci ne régime bi war waxoon nañu lii defuñu ko lii la ñu waroon def defuñu ko fii am na ay manquement wala yéen ci seen bopp da ngeen di am seen programme bopp boo xamante ne da ngeen naan bis bu ñu demee pencum ndaw réew bu Sénégal on va proposer ça pour tel sujet ça peut-être pour tel tel sujet wala ça pour tel domaine foofu laa doon xaar sa programme de législature. non non man euh, duma tëdd liste benn liste man mën naa ne sama député su ma nekkee député. Mhm. li nga xam ne temps de parole bi ñu may may may wax question yi daf maa soxal loolu laa waxagum. Mhm. mais groupe parlementaire bi dina am yoo xam ne ci programme bi ñu proposé Sénégalais yi. moom la taxaw di ko défendre. Mhm. mais man tey loolu avant ngeen di dem ci ay assemblée bay am groupe de parlement groupe parlementaire lay doon. waaw maanaam programme war ngeen ko mën a xam yor ko téye ko maanaam yéen ci seen bopp ngeen discuter ko ba nga xam ne ceux qui vont sur le plateau vont défendre ce programme. man yaakaar naa ne loolu suñ ci duggee dañ ci sori ndax Amadou Ba li mu ci wax keroog mm-hmm. mënu ma ci leen na mm-hmm. loolu leen na bopp Sénégalais yëpp mm-hmm. mais ci li mu waxul laa laa dugg nii ci li nga xam ni man gisoo sawaratu moon dem ay télé bàyyi woon naa plateau yi politique intéressé dama ne woon damay bàyyi politique bu sama mandat bi jeexee. mais li tax tey ma sonn pour bëgg a nekk député. lii bëgg naa ñu dégg ma ci. alors lii nii li nga lim yi yëpp ñoom ba ñu ñëwee dañu def confrance de presse bu jekk ne li Sénégal dund ci économie buy raam ak jafe-jafe askan wi fu mu nekk nii du ci ñoom. Mhm. ndax dañu hérité déjà benn dëkk bu nga xam ne dafa nekk en ruine. bi ci mujj sax la premier ministre démb mi ngi wax ne am na sax ñu ñu jàpp seen i compte am na mille milliards. donc moom mi ngi ci euh, position boobu ba léegi que li ñu nekk di dund du ñoom régime bi fi génn la est-ce que aujourd'hui loolu itam mënuñu ko mënuñu mënuñu xool pour le pour et le et pour le contre ñu xool. Ousmane Sonko dafa tële. gëm naa ko. dafa tële. dafa tële bu la réew mi ne ñi fi nekkoon doyatuñu demal yaay nga ni leen maa yor solution yi maa ngi ñëw. yow dëkk woo dara wax lu ñuy développé lenn rek saa yoo jëlee micro ñii dañoo sàcc ñii dañoo luuba réew mi amul dara mais sérieusement te ñoom bañ fi nekkee tey dañuy gën a yëg réew mi neex ka bi ñu fi nekkee léegi. Ousmane Sonko tant que bàyyiwul ñële moom problème boobu la am. moom opposant la jàppee boppam. mënul def saa yu bëri waree wax ak sénégalais yi ñi fi nekkoon sàcc nañu fekk ñu fi dara fii mais yow lan ngay indi. mais discours bu doxoon na ci élection présidentielle yi. waaw mais dama ni la. gaa ñi jënd ko est-ce que. Euh, dama ni la loolu euh, la war a mën a wéyal ak. askan tey boo gisee yaakaar bi tas. Hmm. mooy lim fi digg woon yëpp la deful. Hmm. parlementaire moom député la war a nekk. parlementaire la moom li ko neex ba neex mooy grand théâtre arena akapé show bonde benn thème la am ñi fi nekkoon dañoo sàcc moo bi réew mi yorul dara mun mënuñoo dem fenn mais bu fekkee ni ñoom dañoo mënul ba ñu dàq leen mais bu leen Ousmane kañ laa lay gëm. Hmm. bis boo bàyyee ñooñu wan nañu man indi naa nangam wante sa débat yépp benn débat nga am mooy. Hmm. fekk ñu fi dara fekk ñu fi dara te yow nee nañu sa cabinet la fa ne toll na ni gouvernement. Mhm. fekk ñu fi dara nga kon na jël ay chargé de mission fekk ñu fi dara nga jël président bi chaque semaine mu tukki tukkiwaat na nii. Mhm. ba léegi.